hamdi wa sukri liman kulli bihi saara loho ridal dona sux tilil dasar saara lillahi kulli ladak abari mugrimatil min hartahal nawafi هجام من سار إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيارتي فرحوا دارين أو سار إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيارتي فرحوا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 naka noonu lañ koy ñaanale Cheikh Modou Kara Sylla mi nga xam ne bi sëñ bi dafa jël lépp teg ko ci loxoom di ko siyaare bu baax di siyaare njabootam gi di siyaare ñëpp di soññi sama mbokki taalibe yi ñi nga xam ne bi yàlla dafa dogal ñu bokk kër gi te li olof di ñu bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo dañuy jéem a xool nun koy rafetale muy sama mbokki taalibe yi ci biir kër gi ndax yàlla dafa dogal ñun ñoo féete kër Sëñ Ablaay waaye cant gi wa keur seigne Kara la seigne ablay Ablaye ba taxna seigne bolé mi bi nga xamné ne bi mo fi taxawal talibé seigne Kara daanaka bu yëkëti won kaddu ñun man nañoo bañ yëkëti kaddu ndax lepp ci ñom la aju bañ nan ko ba bass ba ñom lañ ko jaglél muy seigne Ibrahima Diallo ak ñim baaxo andal ñoo yore walu bass ba ci walu waañ seigne Cheikh Fall Tirey ak ñim baaxo andal ñepp ñu ngi leen ci soññ bu baax di soññ suñu bopp bu baax di wax ñu dollee góorgóorluwaat bu baax ci ak bi ndax lu dul bi rek taalu bi moo ko gën te bu ñu xoolee suñ kilifa yi rek day daal di joxe misaal ndax suñ Moustapha mi mën na ne bu magut fii ñi ko fi mag bariwut te gis ngeen ko bi mu agsee dafa wàcce boppam toog ci suuf nanguwut a toog ci kaw kon loolu royu kaay la ci ñun ba tax na may soññi sama bokk taalibe yi di jiital soxna ndeysaar mi nga xam ne bii moo jiite soxna yi sëriñ Daan jàlloo jiite daayira diwaan si la sëriñ Cheikh Fall jiite soppe yi man yàlla dogal ñu teg ma si bopp bi ma jiite daari daayira tubaab yi ak bépp daayira bu nekk ca kër sëñ bi moo tax ñu ngi soññ waat ñëpp di leen doole wax ñu dool góorgóorluwaat ci bu baax a baax ci cant gi ndax sëñ bi kat lim gis ba tax mu wëlbatikuwaat di sant ma paate ñun taalibe yi war nañoo gis laneen lu lu raw loolu ndax moom mi nga xam ne fa la cosaanoo doon doomi ma paate di doom ji sës rëkk wëlbatikuwaat di cant ma Mapaté ñun taalibe yi kon war nañ cee royaat bu baax a baax doolee góorgóorluwaat bu baax bis bi lépp loo xam ne yàlla dogal na ñu man ko ci ñu jéem ko cee def ndax Sëñ Tuubaa nee na képp ku ma defal li nga man ma defal la loo mënut boo ma defalee loo mënut ma defal la lu la jomb kon war nañoo góorgóorlu bu baax ci sëñ bi def ci lun man ak lun mënut mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare sama kilifa yi fi nekk di jéglu kàddu yi na xam ne wax seen kanam ah waaye ndigal moom jógee mopp doole lépp moo tax ñu fa jël kàddu yi di ko jàllale ñoo ngi nuyu bokk talibé yi ne yépp Sénégal yaakar Cheikh Mouhamadou Kara la sëñ bi mu ngi leen di nuyu di leen jox ndigal ci bis bu tedd bi nga xamné ne Baye Ablaye Sylla moo koy defal sima paté mu ngi wo woo talibé bo xamné xam ko yaakar ak fo mëna nek nekk mu ngi la woo ci bis bi taxaw bis bi day nee na day bis bu ko ñor lool ndax Baye Ablaye day ah dafa doon ko xam ci mom lepp lu joge ci mom jëm sa ci mom lu mu gi deful rek day lu munut comme nee nam la daan wooye euh, ci bisi lislaam yi ni ko daan wuy si bis yi ci lislaam yëpp ko ñor waaye bis bis bii day yaakaar naa moo ci raw bëgg na taal bi yëpp daje fa ca bis ba te bu ñu ñëw itam ñu teel a ñëw taxaw bis ba nañ ko war a taxawoo nee loolu daal mooy ndigal loo xam ne fu waaye ne tey dégg ndigal te yaakaar mu la ci woo ndax Baye dégg ci aw lamiñam wax ne seex suñu seex si la diwaan day su xamoon ne moom lii mu am nii lay lii la ko defal kon dana ko gën a liggéeyal ba li mu am mu am ko ndax xam ne lu am rek suñu Cheikh Saliou Diwane la mu jàpp sëñ Modou Kara mi nag ni nga xam ne la ko sëñ sëñ Diwane jàppe woon xam naa jàpp na sëñ Modou Kara raw loolu ndax ñun ñu waxtaan moom day di dégg lañuy wax sëñ Kara day kon ñun taalibe yi lépp lu Baay Ablaay eh, sëmb rek ñun ñoo ko war a yenu kon ñu ngi ci ñu bokk taalibe yëpp di leen siyaar bu baax a baax nag tey ñaanal Baay Ablaay mu yàgg lool te ba lim bëgg liggéeyal suñ ma paate mu liggéey ko na ko bëggee dañ ànd koog moom. ñoo ngi soññ suñu mbokk jigéen ñi ñen ko daan defe rek waaw ñu soññ taalibe yi soññ mbokk jigéen ñi soññ dëkkandoo yi soññ soppe yi ak ñëpp xarit yi ak ñëpp rek ñu leen di soññ ci bis bi ndax bis bi kat lu ñor borom la ndax bisab suñ ma paate moom mërta da tuuti dañ ko war a fonk bu baax a baax a baax nag di nuyu sëñ Kara la ak waa këram di ko sant di ko gërëm ndax moom wax yàlla fa mu teg Baye Ablaye moom te Baye Ablaye moom ko fonk ñun ñëpp a ko war a fonk wax di yàlla ndax laa bir na baax na moom daal ci nekk li mënuñu ko wax ñaan nag fan yu gudd lool ànd ak wér gu yaram ak mboolem njaboot ak seen ma paati si ñu ngi soññ ñëpp na ñëpp teel a ñëw kenn ku ne ci daan def nga yokk ko ku mënta yokk bu ko waañ na ko yokk bu baax baax a billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa salama taslima mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sant Sayxul Xadim ñi ngi ñaanal mboolem koo xam ne ni dangaa toogee jataay waaju baax sunu borom kàtt nan la ba la nga koy yéene liggéeyal sunu borom defal la ci lu kaw njort ñu ngi leen di nuyu it ci turu ci Mouhamadul Karaasi la ñi nga xam ne moo bëgg na teew fii lool ndax bis bi ñor gum ko ñor ak yëg gum ko yëg ak dogu gum ci dogu waaye nag jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak pexeem mu génnoon xaw a sori lool wax ñu teewal ko fi yëkkatil ko fi ay kàddu loolu de xëy na dana dis ñun lool waaye ndigal moom ku ne xam na ne santam moo jëfe kon ci turu ci Mouhamadul Kara nee na mi ngi woo. mboolem taalibe yi yëpp si bis bi nga xam ne amul lu dul moom ndax kiy def bis bi kat day wajuram di xaritam di léppam di ab soppeem jël lépp teg ko ci loxoom kon loolu moom eh, fi mu ko teg am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem kon mi ci woo mboolem taalibe yi fu mu mën di nekk ci réew mi wala si bitim réew di jiital ci woote boobu nag buñ ci tuddee jëwriñ ji moo doy sëkk. mu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sylla mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi te doy ko sëkk nee na mi ngi teg lépp ci loxoom di soñ ñëpp ñu ñëw def ko nan ko war a defee. li tax nag ñu war a teew ci bis bi ñun taalibe yi dafa bari lool buñ tàmbalee si Seexul Xadiim mi nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def te am waa ji waxoon ne wa in jalat fal awliyaa wa in jalat maratibuhum foohum la des saxi kalqilmaani wal xadda bi nee mbolem nit yàlla yi wala walu yi bo leen nattee ci cheikhul khadim dañu melni ay gone wala ay jam kon cheikhul khadim mom la kenn xam lu mu doon. sant nak day lu war ndax Cheikh Ibrahima Diop nee fa sukkuruhu huwa llahi khaliqina wa askaru nati man li cheikh xat sakara nee sant Serigne Touba wala sant yàlla muy deug deug sant Serigne Touba nee ki sant Serigne Touba sax moy ki nga xamne mo moo sant yàlla kon bo bëggee sant sun borom subhanahu wa taala ga sa gaaw moy sant Serigne Touba koko nak bu ab jaam di doomam léppam di ko sant kooku moom ñëpp maase war ñëw di ko sant le muy maam Abdoulaye Sylla bu loolu lépp jàllee maam Abdoulaye Sylla sëriñ bi nee na moom si jëmmam képp war naa tax lu nit jàpp ma war koo mën a baax ñëw sa bis boobu ngir ak lewetam ak baaxam ak féete ñu foo xam ne lot nañ ci sunu bopp kon kooku bu wootee ab bis buñ ci doonutoon dara di ko dégg rek warat na uh, mën a teew joxe suñ ñaq jàpp sa ba mu mel na mu bëgg kon sëriñ bi nee na lim tàmbale woon rek moom lay tëjee bëgg na daal fu ab taalibe nekk moo xam si réew mi wala si bitim réew nga ñëw jàpp ci jàppale si euh, sa bopp sax laay wax waaye du ma wax jàppale ci ma Abdoulaye ndax lu sa waaye def sa bopp nga koy defal nga ñëw jàppale si sa bopp ba sëriñ bi am ko ni mu ko bëggee. fi ñu ko daan defee it fa lañ ko fa koy defee rek muy diwaan si la wara war a tombé 26 novembre. kon sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp ren nag am na ak coppite ndax bi nee dafa bëgg buñ sa yeggee ñu yendee jàng xasida yendoo jàng alquran yendoo berne buñ jël julee takkusaan ñu yeewu mbooloo mi ñaanalante ba déwén ñu ngi jégalu kàddu bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa